salaamaaleykum nuyu naa leen euh, dañuy ñëw rek defal leen benn débriefing rek par rapport ak li nga xam ne moom moo nekkoon di xew tribunal ginnaaw bi ñu fa jógee euh, donc audience bi nag bi mu commencé ay avocat Mame Mbaye Niang jël nañu parole donc ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang moom si boppam réclamé na 94 milliards ginnaaw bi mu wàññi ko ba 29 milliards mais li gën a tax mu ñu def vidéo bokk na si le procureur Bakhoum parce que procureur Bakhoum bi mu ñëwee di wax da ngay sentir ne waa dafa indaale benn haine waa ji dafa fanaanoo benn mer boo xamante ni nii contre le président Ousmane Sonko dañu xamul nag par rapport ak conférence de presse bi mu def démb moom moo tax mu def ko am déet mais bu ñëwee di wax da ngay gis sax ne waa ji malgré salle bi ñu nekkoon salle climatisée la mais dafay wax di ñàkk te wax di ñaxte ñaar kese kay waral mooy benn li ngay wax du dëgg wala ñaar nga tiit ci li nga xam moom ngay wax donc yéen nag yéen a gisee xool ba xam lan moo tax mu doon def loolu noonu mais en tout cas ak lu mën di am rek donc bu ñuy wax sax ñoom donc dangay sentir que ne ñii nekkatul loo xam ne lu sérieux la mais dafa nekk loo xamante ni nii donc am na lu ñuy préparé pour def ko ginnaaw bi nag procureur si la demandé deux ans yoo xam ne. un an ferme la Ousmane Sonko di tëdd plus un mandat d'arrêt loo xamante ni demandé wu ko mais bii daf ko si yokk ne bu fekkee juge bi topp na ko si li nga xam ne moom loolu la bëgg mooy nañu yónnee benn mandat d'arrêt contre Ousmane Sonko maanaam ñu dem fekk ji ko si yenn sor ba mu nekk ñu jàpp ko pour euh, donc indi ko tëj ko pour li nga xam ne loolu lañ ko condamné. léegi nag juge bi la ñuy déglu parce que ñi ñu war a joxe délibéré 15 euh, heures incha allahu rabi fii ak 2 heures de temps la ñu war a joxe li nga xam moom mooy délibération bi ñi ngi xaar ba xam lan moo siy tukkee ba xam. dafay topp li procureur wax wala dafay confirmer li nga xam ne loolu la ñu àttewoon bii passé parce que li ñu àttewoon bii passé comme Macky Sall moom moo toog ak benn leader Yewwi Askan bi mu ne leen Ousmane Sonko dafa rëcc si procès bi parce que siis bi ko doon àtte Pastef la bokk léegi nag ñoom wut dem nañu wuti seen siis yoo xam ne xëy na APR la bokk wala feneen la ñu bokk pour ñu àttel leen moo tax en tout cas daal nañu xam ne ñun jot na ñu jël suñuy responsabilité ngir taxaw ngir protéger ki nga xam ne moom mooy le président Ousmane ko ak projet bi nga xam ne moom lay taxawal pour Sénégal yépp parce que dama gëm ne ñii du ñoo xamante nii ay six jours euh, yu ay six jours neutre lañu dañuy def seen liggéey ni mu waree mais dama gëm ne dañu nekk ñoo xam ne dañ leen a sant benn mission ñu war koo def léegi nag. jot na si ñun lan moo war a nekk suñu taxawaay est-ce que dañu war a toog bi xoole est-ce que dañu war a seetaan ñu joxe seen verdict bu leen neex est-ce que dañu war a seetaan ñu condamné Ousmane Sonko loolu lépp des na si man des na si yow des na si yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan donc tey loolu moo tax may naa ñëw rek def débriefing après bu ñu joxee verdict yi incha allah dinañu dellu